moo amal ni ngi tey jii beneen visite boo xamante ni boo am solo la si dëkk bu sell boobu di Touba tey di yoon yoo xamante ni mu ngi tegloo buy dem si dëkk boobu di Touba nag muy taw moom moom di président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey ci altine ji yemoo fukki juróom-ñeent si weeru foofu si dëkk bu sell boobu di siyaar ji ki nga xamante moo di xalifa général ni mu yemook téeméer ak fanweerul édition boo xamante ni muy màggal moom moomee nag di jiitu réew mi ki nga xamante ni moo ko dalal nag di ki nga xamante ni mooy Jean-Baptiste nekk ki nga xamante ni mooy jëwriñ bi ñu dénk wàllum kaaraangeeg biir réew mi waaye ki nga xamante ni nag moo ko teer tamit bokk ci gouverneur bi nga xamante ni moo jiite foofu noonu sa Diourbel ak ki nga xamante ni moo di préfet bu département bu Mbacké moom moomee di Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag yëkkati ay kàddu di wax ne daal li nga xamante ni moo di ndoxamu tubaab bi daal mën nañ ne yitteem la joo xamante ni na te dina nag fexe nag xamante ni si nag ñaan li nga xamante ni moo ab dal si li nga xamante ni moo di Sénégal xalifa général des di soññi tamit ñi yi yu yi di sëfoor yi di wax ne daal nañu dawal ndànk dal ndànk te tamit li nga xamante ni moo di màggal Tuubaa gi ñu dëgmal nag bëggut si benn accident boo xamante ni dina amee si li nga xamante moo di si kaw télé bi di wax ki nga xamante moo di président de la république di dalal xelam bu baax nee ko lii nga xamante moom nga ñu ñaanloo tamit dinañ ci def suñu kéemtulaay kattan waaye président banque bi mu jugee foofu nag jubali na fi nga xamante ni moo di si jumaa ju mag joojee waaye ba mu fa jugee jubali tamit fi nga xamante si xabru mag bi foofee nag mën nañ ne nag mu naroon faa def li nga xamante moom la ñuy wax julli dem sax ba def li nga xamante ni moo di kabar ngeen gis ko noonee waaye ñi nga xamante ne ñoom la àndal ko ba nga xamante moo ñu gis ngeen koy xamante ni moo toog noonee mën nañ ba ko gisee sax si la xelam dal ne fii kat nag nekk na bërëb boo xamante ni duñ fi jullee.